podcast avec euh, lui euh, euh, donc maa ngi si gars yi keroog aussi assan yaay invité na ma donc ak Ousmane Seck mhm. Matizone maa ngi dugg di gisanteeg ñoom donc di ressourcer waat mhm. encore mhm. avant may ñëw sur le terrain quoi et ça yàlla def na nag aussi depuis avant may dem la comme ñoo xame ne xamante woon naa ak ñoom aussi bu ñu ñëwee France aussi bu ma fekkee aussi pare noonu lay ñëwaatee donc gisanteeg ñoom donc y a donc de difficultés entre maag ñoom pour l'instant. D'accord. donc donc fréquentation bi moo xaw a metti rek parce que donc c'est pas évident ngay dem di fëgg tout le temps donc kër artiste bi mais souvent sur les plateaux donc on les partage bu ma leen fekkee sur scène et tout ça quoi. d'accord juste pour terminer say projet. projet mooy euh, donc euh, donc revenir sur scène euh, mois de de de de novembre bi avec un projet qu'on a mis déjà en route et on essaie de s'organiser et des partenaires aussi pour ça. ak producteur. Bon, néanmoins, s'il n'y a pas de producteur aussi, euh, on ne va pas croiser nos bras, donc on va essayer de s'en sortir pour le produire mm -hmm. avec euh, nos propres moyens, nos propres idées ou nos propres collaborateurs. daal fu mu toll li ma gënoon soxla mooy producteur parce que j'ai besoin donc euh, quelqu'un derrière parce que c'est un projet kon voilà man li ma soxla mooy fu ma produire ak sumay idée parce que mm-hmm. on a des idées parce que def naa même beneen euh, son boo xamee ne si alertement maternel la pour euh, di digal jigéen ñi ñuy nàmpal seen doom si soow mi seeni i wen déjà c'est un projet qui qui est en cours avec euh, les et euh, donc defaraat naa aussi Pikine dëkkuwaay bi la comme bi nga xamee ni moom laa leen bëgg a woyal mhm. xale yi Pikine mbër ñëw na ne leen ko bisimilaay ah moroon jaaga ñëw na ne leen ko bisimilaay bu ñey di xàll mbabal dëgg dëgg doom jee tax gi ñëw na ne leen ko bisimila yi nga juddoo pikin yeroo pikin rek dafa doy ndaam leneen loo ca dolli wane sa bopp la maa ngi ñëw gaañu <laughs> kon yëg gis nga ko maa ngi leen ci ah. félicité di profito ci loolu. voilà euh, ASC Pikine nga xamee ni Pikine amati ngeen ndam. ASC ah, waaw ndam rek. comme li ñuy faral di wax rek donc euh, ca kaw ca kanam donc maa ngi leen di féliciter rawatina ak ñi nga xamee ni donc ñooy gulwaar yi ñoom Samba Anne mhm. ñoom ndeysaan ndam ci yàlla si élage Hadj Mbaye Ndiaye euh, Samba Sow donc de passage euh, keroog rek wax nañu téléphone ci mhm. affaire u ñaay ASC e Pikine Modou Fall aussi ah. félicitations président ñi ngi ñëw ah te am na lu ma namm pour ASC e Pikine donc mois de novembre incha allah Euh, defe naa ni nag dinañ ko bokk ñun ñëpp partagé ko donc pour wane ni sport bi aussi ak musique bi benn la. dañoo ànd waaw dañoo ànd di la jaajëfal waaye dangay des ak ñun ba ci fin bi incha allah. waaw incha allah léegi léegi dañuy mhm. dem rek ou sa coiffure pare na. sama sama coiffure pare na. waaw jekk na de. instant bi dama koy dama koy bàyyi mu nuyoo jaara. jëkkatil sa micro nga waxtaan ak ñun. Mhm. jaara taaloo sa micro de daa mel ni koor gi dalaa jàpp waa u man lii bu ma ko gisee dama foogoon ni dañ ci def mèche mais apparemment dafa naturel. waaw mm. dafa naturel comme ko gisee nii ma defal ko sama mantel bu tàng mhm. euh, xam nga dañoo nekk si koor. Mhm. aussi koor gi souvent am na mariage yoo xamante ne day ñëw ci corps bi donc sans pour autant mën nañoo bañ utiliser mèche. Mhm. mais ñu utiliser ko ak karaw. Mhm. su fekkee euh, am na karaw. Mhm. même su fekkee amul karaw aussi mën nañ ko defalal tuuti yu comme def naa ci mais du bàyyi. mais où dañ lay bàyyi nga expliquer vu que. waaw comme comme moom moo def coiffure am léegi dañ la bëggoon laaj coiffure bi est-ce que am na tour est-ce que lan moo tax nga def choix bi. d'accord léegi euh, en tendant le temps ñuy régler problème microbi bi. Mhm. coiffure bi matériel comme ni ñu ko expliqué presque coiffure bi coiffure karaw kese la karaw simple. Mhm. mu nekk coiffure boo xamante ni aussi rafet na franchement rafet na gaaw na. Mhm. rafet na gaaw na simple na ba pare mun na dem fu nekk du la déranger franchement du la déranger ba pare nekk. sa bopp muy saf wala muy encombré mhm. tout ça donc euh, seetlu loolu daal seetlu naa ko ci waaw rafet na ba pare ay vagues yu jekk lañ ci def ay vagues tiire ginnaaw gi mu mel ni te karaw kese la voilà dañu tiire ginnaaw gi aj ko def ko benn chignon donc euh, mu nekk karaw karaw karaw cinq ah karaw 5 ñun ñu ñu koy soog a présenté fii ci plateau bi. waaw waaw à part coupe bi ñu fii waa coupe bi sax dafa ah. raxoon ay. à part euh, bi moo bi moo nekk deuxième coiffure boo xamante ni karaw simple la. mais lii durée bi ak euh, li nga xamante ne mooy isoplus bi. waaw léegi xam naa loolu yëpp dañuy bàyyi ba après ñoom moom gën ko mun expliquer. Mhm. durée beeg ñaata temps la mun a tenir yooyu. nga ñëw ci ay perruque nga xam ne du la tere jàpp du la tere julli tey également nga ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di moom moo di euh, karaw kase comme ni ko waxee c'est la première fois ñu présenté ñu ko man lu tax ma ne la première fois mooy que même bi ñuy defal coupe de cheveux yi mhm. raxoon nañ ci mèche mais coiffure euh, coiffure boo xam ne karaw kase la bëriwul ku koy def est-ce que umu bi ngay def choix bi ak ak ak ak coiffeuse bi mhm. amoo ci woon ay crainte yaakaaroo woon ni du mën a nekk ndax karawu coiffure karawu kese du ñëpp ko ñeme. non non non amoo ci woon benn crainte parce que déjà bi ma ko laajee rek loolu la ma njëkk a proposé moom moo ma proposé na ma la karaoke si comme xam naa ni xëy nekk na ci et puis xarañ na ci domaine am la mhm. dafa mel ni tey rek bu ma la doon laaj ci people xam nga xam nga du ma ci hésité <laughs> donc ku nekk ci dara nekk ak sa domaine moom lii domaine am la donc euh, jaara ñu continuer ba tey suñu waxtaan nan la sa coiffure tudd sama coiffure maa ngi ko tuddee euh, Miss Labado rek parce que damaa xam ne xale bi wax dëgg yàlla mën na nekk Miss Labado. Mhm. parce que rafet na taaru na macha allah et puis am na karaw. Mhm. daanaka bi may def voilà bi may defaalee coiffure bi. aw ma jafe-jafe pour def ko. Mhm. parce que moom am na karaw et puis karawam neex na pour defar. voilà dafa nekk coiffure boo xamante ne pour nga am pour nga def ko ki am karaw. waa bu fekkee par exemple xam nga nit sénégalaise moo mel noonu. day gis dara rek bëgg ko par force. du xam soit. mu am karaw wala mu bañ a am karaw wala affaire yooyu mais bu fekkee bëgg na ko tel qu'on soit ñu rajul ko wala mën nañ ko def xal aussi karaw kese. mais comme question coro bi rek dama koy indiwaat est que nekk na loo xamante ni yomb na walla wala jafe na jafe na defar. waaw jafewul de parce comme li ma la wax rek. Mm-hmm. fii ak boo mënee sa liggéey rek yaakaar naa. am na yoo xamante ne du jafe ci yow. Mhm. te aussi ku ne xam ne coiffure karaw yombul. yombul mais soo xarañee rek comme ni nga ko waxee rek. <laughs> dara du la jommal donc voilà. Mhm. sama coiffure daal mu ngi nii lii laa leen doon présenté. Mhm. et puis mën na tenir une semaine. une semaine même soo ciy jàpp même boo siy jàpp. Mhm. mën na tenir une semaine. Mhm. voilà te da nga koy séché pour mu gën a boo paree rek soxla soxlawu ngay dool dolli produit soxlawu ngay def dara da ngay séché waat rek mu wowaat. Mhm. même booy séché aussi da koy séché parce que mën na changer mouvement yi gel gel bi aussi mais coiffure bi fan la mën a dem. waaw coiffure bi marié sax mën na ko def gisoo ndóol la marié donc. waaw waaw voilà. <laughs> parce que marié mën na ko def mm. kuy def aussi euh, kuy liggéey bureau ça dépend mën fu nekk mm. l'essentiel mooy nanga koo kii daal maquillé ko jox ko valeur am nag parce que foog nga maquillé si maquillé bu nice buy génn affaire bi mm-hmm. sañse bi sax mën na demee noonu mais xam nga nit daal mooy bopp bopp mooy nit. ci xalaat balaa ñuy tëj. Hmm? góor ñi luñ ah, ci xalaat balaa ñuy ci waaw rafet na rafet na franchement lu naturel la. Mm-hmm. ndax euh, boo ko xoolee nii sax donc li ngay gis ni euh, franchement karaw kese la. karaw kese la invité nañ fi benn tubaab mooy tubaab bi ñu fi invité woon. asawaali asawaali asamaan mu ne moom li ko jaaxal ci ci Sénégal du gis euh, sénégalais yi ñuy def ñu jël seen karaw kese noonu. bàyyi ko noonu wala ñu koy coiffé noonu. Mm-hmm. alors que am na. te c'est vrai loolu mooy. Mmh. Euh, donc parce que des fois bon dama yàlla baal euh, euh, si nasaraan dañ leen di saboté bu ngeen defee nii. <laughs> Ah c'est pas naturel. Ah. des douleurs ah, chevaux quoi voilà clip bu dal sax. ah bon <laughs> ñoom balaa ñu laa fonk sax nga wattu nii wala gawaay sa karaw. wala nga lépp dëgg la c'est que ñoom c'est bëgg ñoom dañu bëgg africaine yi tout temps rek di wattu ñoom ñoom ñoom ñu dàq wala ngay lettu nii lu ñu gën a contre moom loolu ci la bokk hmm. boo naturel wul dañu naan noyation euh, <laughs> dëgg la li wax dëgg la effectivement tubaab bu gisee ñu teg soit mm-hmm. perruque cheveux naturel mm-hmm. wala ñu def loo xamante ne c'est wala fa yooyu dañuy saboté donc man mii sax mës na maa daal mës naa sol sama perruque ba foog ne maa ci nekk eh, eh. romb benn tubaab bu góor mu xëcc sama perruque <laughs> nii xaw la laa koy wax ma ne bon il a raison donc parce que tamit mooy loolu da koy jaaxal. maam Diarra euh, li indi doon ci coiffure euh, rafet na simple na gaaw na. Mhm. naturel na et puis original na. dañ lay gërëm di la remercier di la bàyyi nga tàggu. merci tàggu ba beneen yoon xam naa incha d' accord incha allah maa ngi leen di tàggu. Mhm. di tàggu képp ku ma gis euh, sama xarit yi sama maam am ñaan mhm. ak sama yaay Seynabou Diaw sama tante depuis aux États-Unis lii yëpp moom la. waaw Ndeye Amy ñoom coof ñoom. ta princesse ta maam Fatou ñoom ñëpp awa di gërëm sa kobaay bi waaw di gërëm aussi sama kobaay bu rafet bi macha allah <laughs> mami mami taal mami taal si dafa xaw a timide nag <laughs> di remercier waa këram ah, ak yaayam uh-huh. bu du woon moom tey jii fi du fi toog xale bu dégg ndigal la bu dégg waajuram affaire yooyu ba koy kii di daq bu baax aussi di ko ñaanal un bon jour ñu koy maye ba ma ko felku lu dàq la amiin jërëjëf merci beaucoup kontaan nañ di tàggatoo maa ngi tàggu ñëpp di leen wax ba suba incha allah. tey tey amul tàggatoo mbër. tey dama tàggatoo mbër. kon baax na di la remercier li ñu indi woon rafet na léegi léegi du ñu ànd. national rubrique people ci seen biir émission petit déj. Thio. mat naka suba si. ça va. tey actualité people nationale à chaud fu ñu jëmati. Euh, voilà di nuyuwaat ñëpp comme euh, alxames bu jot nag tey suñu information dañ koy tàmbalee ak li nga xamante ne moom moo di mbiru Assane Ndiaye di promoteur boobu le ku ne xam nga ni Assane jamono ji dafa nekk ci euh, jafe-jafe ak yoon moom nag liñ koy toppee moo di wàll wurut ak i tamit mbirum visa américain ci lu mel noonu lañ ko doon toppee ba tax moom mile bile coow mi ngi ko sekk ak ñeenti nit yoo xamante ni kenn ki mu ngi tudd Ahmadou gay moom également nekkoon mbër mais mujj convertir wu nekk ci wàllu boulangerie ak ki nga xamante ne moom moo di mamball Balla Mame Balla mbër la Mame Balla Cissé kenn dootu ko présenté ak El Hadj Abdou Koña Ndoye mais xam nga El Hadj Abdou Koña Ndoye bi ñu bëri dañ ko foog Koña bii nii ba moom sax def na ay sorties pour leeral ni que mm-hmm. c'est pas lui et affaire bi doon na loo xamante ni créé na ko pas mal de de parce que ku nekk mu ngi jàpp ni la mais du moom nag du kooña boobu beneen kooña la ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Massamba Ndoye ba tax euh, Assane Ndiaye ni ki démb lañ ko doon jugé ca tribunal bu Ndakaaru ginnaaw bi nga xamee ni euh, képp koo xamante ni bokk ñu bëri ci ñi ngi bokk ci axlu làmb moo xam journaliste la moo xam reporter la ay nitam ñëpp ñëwoon nañu ay mbokku promoteur am également teewe si bés boobu la ngir indil Assane Ndiaye seen soutien ñu xam ne ni nag euh, Assane Ndiaye également moom euh, mbiram la ñu yóbbu woon fin de rôle euh, moo nekkoon mbir mi nga xamante ne moom la ñu mujjee jugé démb ci tribunal bu Ndakaaru moom nag nangu na ni liñ moom moo ko def mais li mu xamle mooy li mu bëggoon rek moo di jàppale mbër yooyu le tey laaju leen woon dara mais li xaw a doy ci wax ji moo di ni ñoom Mame Balla ñoom démentir nañ loolu parce que ñoom ginnaaw bu bu ñu jotoon seen visa américain dañu waroon verser Assane Ndiaye xaalis mais ginnaaw ba jotuñoo jot visa bi donc xaalis bi mujjul dem ci ki nga xamante ni moom moo di euh, Assane Ndiaye ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo di waa CNG ki di Thierno Ka teewaloon leen fa ñoom également euh, indi nañu ay euh, seen ay leeral parce que Assane Ndiaye da doon defaral ñooñu le ay ay licence ak cachet CNG à l'insu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa CNG ñoom boo gisee ci procès verbal bi nga xamante ni fo euh, ay ñenn ci ay euh, avocat yu Assane Ndiaye wan nañu ko ngir gën a ñoŋal suñu liggéey gis nañ ci ne waa CNG ñoom ci seen parti ñi ngi doon euh, xamle ni déjà ñoom seen ay licence duñ ci def surnom wu mbër mi maanaam tur biñ koy woowee vrai turam lañ ciy def et que li li li li gën a indi tamit coow li moo di ni Assane mi ngi def ni euh, xale yi le 10 août la ñu waroon a bëree euh, saison de lutte bi le 31 juillet lay tëj sauf que ren sax am nañ dérogation ba le 3 août donc le làmb amatul beneen mbir bi gën a tax seen mbir gën a doy waar moo di ni ci euh, ci ci ci licence yi ñu defaral xale yi ak ci li nga xamante ne moom moo di contrat yi ñu leen defaral pour wane ne dañu war a bëre dañu def ni que làmb yi mi ngi am même jour ci même stade bi ñaari promoteur yu bokkul tëgg ko donc loolu lépp bokk na ci ay couac yoo xamante ni amoon na ci këyit yi Assane doon defaral xale yi ba tax ambassade États-Unis ci seen vigilance ñu ñu gis loolu interpellé ci CNG ba tax euh, coow li yëpp topp leen léegi nag li ñu ciy jàpp moo di ni procureur sàkku na ñaari ati kaso dont six mois ferme yoo xam ne dañ koy tëdd ci kaso bi pour maam Balla ak ki nga xamante ne moom moo di promoteur borom Bawol production di Assane Ndiaye ñi ki des nag moom 3 mois ferme la procureur daal di sàkku dinañ ci am nag lu leer ni ëllëg ci àjjuma ji ca tribunal bu Ndakaaru délibéré bi foofu lay amee dinañ ko toppaat ba xam yan yan yan information moo ci nara euh, jóge ñu jóge ci mbiru Assane euh, ñëw ci ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Wahab Talla Mamadou Wahab Waxab nag moom mooy président fondation Kéba Mbaye euh, Waxab Talla euh, jamono ji dañ koy euh, dañ ko tudd ci mbiru affaireu chantage ak extorsion de fonds moom jamono ji turam wër na li nga xamante ni moom moo di pas mal de sites internet yu nekk fii nii presse en ligne bi maanaam ñi ngi waxtaane bu baax li nga xamante ne moom moo di mbiru Mamadou Waxab Talla beneen mbir boo xamante ni yaakaaroon nañ ni euh, jeex na mais dafa mel ni ba tey pënd mi wureegul ci mbir moomu mu di mbiru ñaareelu con sekk bi euh, ba tey nit ñi ñu ngi ciy waxtaanaat presse en ligne bi ñu ngi ciy bindaat di xam ne ni donte rumeur yi bari woon na am na amul diw la du diw euh, xam ne nañ ni même bu dee ni jamono yi jàpp nañ ni sëy bi amatul mais sëy jotoon na am mu mel ni ñenn ci suñu ay naataangoo bi ñoom bàyyee gu wax jooju ndax gën nañ ci bëgg a andi li nga xamante ni moom moo di ay firnde te euh, jàpp nañ ni duñ ci yem bu ñu jógee ci Thione Seck dañuy jàll ci ki nga xamante ni moom moo di Selbé Ndom Selbé nag dafa mel ni temps yi dafa yëkkati ay jaajam ci làmb ji yóbbu ko fi nga xam ne moom moo di ci match yi parce que ci coupe du monde bi waaw parce que Selbé Ndom dafa pronostiqué woon dafa prédire woon ni Allemagne dina gagné Brésil Argentine dina gañe Hollande mhm. te loolu moo am ah waaw mu mel loolu loolu moom euh, mu mel ah. nii xaw ma kañ la daan pronostiqué jamono yi mu xaw a la final bi waxagul xëj na xëj na dina ci petit déj dinañ jéem a jokkoo wala ma dem ci moom bala maa pronostiqué ah. waxtaan mu wax ma euh, beneen mbir également di mbiru Mame Goor Diazaka Mame Goor suñu ay naataango yu observateur xëy nañu xamal ñu ni dañ parce que Mame temps yëpp dañ koy gis tribunal dugg ak génn li ko waral moo di ni maam góor benn garde corps kii di Cheikh Amar di xaritam da ko dóor euh, dóor yooyu mu jëlee ci certificat médical bu 15 jours Euh, ba tax moom mu porter plainte mais li tax mu gën a topp mbir mi moo di ni moom li mu bëgg mooy euh, ñu bëri jàpp nañ ni li mu bëgg moo di ne ñu teg loxo garde corps Cheikh Amar boobule ndax ginnaaw bi mu ko porter plainte euh, concerné bi en dara tukkeewu ci ba tax moom taskati xibaar yi di ñu xamal ni mu ngi dugg ak a génn tribunal gëjatu fa ndax mbir moomu bëgg na ñu topp ko ba fu mu yem neex beneen bi mhm. ñu dem ñu dem voilà parce que man foofu euh, <laughs> dafa am benn affaire bu ma jaaxal parce que euh, xam ñëpp xam na ni que Diazaka xaritu Cheikh Amar la xaritu la ñëpp loolu ñëpp loolu ñëpp xam nañ loolu xaritam la dégg nga ñu ci bare sax boo buggee gis Cheikh Amar sax euh, ñu ci bari ci moom la ñuy jaar. mais pour ma leeralal la waaw mhm. mais c'est lenn moo ma jaaxal. Mhm. mooy que lan Euh, garde du corps bi lan moo tax mu tere ko mu dugg ci kër gi. Mhm, loolu nag parce que loolu y a problème est-ce que. Euh, ordre la voilà est-ce que ordre voilà est-ce que kii bi jotul ay ordre. wala kon lan moo am diggante Cheikh Amar ak kii nga xam ne. xaaral ma andil la ci ay leeral. ci information yi. Mhm. Euh, Cheikh Amar dafa feebar. Mhm. Euh, feebaroon na yaramam sutante na mu wàññi ay génnam ñu bëgg mu noppalu ba tax euh, ki nga xam ne moom moo ji bodyguard bi dañ ko jox ordre comme quoi que bu kenn dugg si et na ñëpp bàyyi mu noppalu sauf famille ñàkk mhm. bi eh, eh, maam góor jazaaka ñëwee mu xamal ko loolu mhm. maam góor loolu neexu ko parce que jàpp nañ digganteem ak Cheikh Amar bu yëgee ni Cheikh Amar dafa feebar mhm. yoon la mu taal otoom ñëw eh, seeti ko ca këram fee ca Mamel ba tax nag ci dinaa dugg duma dugg ci la jàppante bi jóge ba maam góor sax ñu ngi wax ni ci dóor yooyu jële na ci benn rasta bu daggaak yooyu noonu léegi ñi ngi xaar ba xam moom li mu bëgg yoon def ko carrément ci mbir mi nëgëm dina ci am dañuy ñëw ci beneen mbir mu di mbiru Ouzin Keita ak Lady Mounass ndax ñoom euh, jamono ji presse en ligne également ñëpp ñoom la ñuy waxtaanee parce que ñoom yëgal yëgle nañ seen mariage. Ouzin Keita mooy kooku borom bërëng bërigo doo <laughs> kooku mooy doomu xew <laughs> voilà léegi nag ñoom nag. <laughs> Euh, waaw te ah. mooy njëkkee. ah yow petit des kay am na xew. Ah, ah, yow la ndeysaan. <laughs> Ouzin Keita euh, dina def mariage am ni ki samedi bi comme ni nga xamante ni presse en ligne bi yëpp ñi ngi koy ñi ngi koy waxtaane li ci doy waar ci mariage bi mooy ñu bëri dañ jàpp ni dafa ëmb mystère dafa am lu ñu waxul. Mhm. parce que le fit que Ouzin xëy xëy rek nëbbu boppam ba xëy bëgg a marié wu en dañ naan que Ouzin di marié wu lay di menace moo tax ñu bëri ji ngi naan ah ñii clip la ñuy tourné ñii lii la ñuy tourné amul am na Ouzin Keita nee na. day takk jabar dëgg. nag ko. léegi parce que la fille en personne man woo na ma telefon ne ma damay marié wu ak Ouzin Keita. ah kon kay jeex na kon kay te xew mi unaaray njëkkee waaw waaw naa ni leer na. unaar unaar xaaral ma préparé. yaa ngi laajte ndax est-ce que du manipulation comme ni ñuy tàmm di manipuler journaliste. ah euh, ndax euh, man xam nga man sa au début bi ma lay di munaas ci boppam woowee dama ko ne duma seen morom yaa Ouzin. bu fekkee ni que da ngeen di jouer film wala ngeen di enregistrer clip wala ngeen di tourner clip da nga ma ko da ma koy wax dafa ma waatal ni ma du loolu lépp. Ah, dañuy marié wu. yow daal yow daal def nga sa wawu def nga sa rôle journaliste taxaw nga fi wax nga tudd nga ko. tu es couvert jeex na tu es couvert boo ëllëgee euh, bu ñu defee seen euh, bu dee du loolu. bu boobaa nag opinion baa ngi nii jàkkaarloo dinañu xam ñu <laughs> ñëwee ci beneen mbir mu di mbiru euh, Viviane Chidid mm. mu mel ni Viviane itamit euh, uusoom ko mayee information bi mu ngi fii ci euh, magazine di Face Dakar mm-hmm. mu mel ni moom tamit pënd mi wureegul ci coowam ak ki nga xamante ne moom moo di am Amdi ndax ñi ngi fi doon wax takk suuf bu dox ci seen diggante mu mel ni nag jamono ji coow li bari na Fees Dakar di ñu xamal ni Viviane euh, boo moytuwul sax ci tas ak baaba am di la jëm ndax coow li bari na supporter bi en cachette doy na waar te soxnay am ji di yande mënul nangu mariage bi euh, baaba am ji également munuñu d'accord ci am ji di denc Viviane ba tax euh, coow loolu moom pënd mi wureegu ci waaye concerné yi yaakaar naa ni ñoom ci seen bopp dafa mel ni bëggaguñu coow li fay ndax yaakaar naa ni bu ñu ko bëggoon dinañu dinañ ci andi ay leeral ngir coow li daal di jeex. Adja Diallo itamit euh, ba tey euh, Faye Zakar di ñu xamal ni ginnaaw divorce am mu mm-hmm. ngi fréquenté waat boîte de nuit ya mu daan fréquenté resto ya mu daan fréquenté mi ngi elle bien ci vie bi nga xamante ni ci la nekk parce que aussi benn jegeñaale mi ngi wax ci Faye Zakar nii. tey bi dafa étouffé woon ba tax bu génnee c'est très normal mu génnaat féexal xolam Ré Diallo bu ñu El du Maodo indilee image am également Ré ku ne xam nga ko à travers réseaux sociaux yi ak yu mel noonu sœur ci ki nga xamante ne moom moo di Adiouza Ré tamit temps yi ñu di ko waxtaanee bu baax ci euh, li nga xamante ne moom moo di euh, presse en ligne bi li ko waral euh, moo di nii coow loo xamante ne dox na ci digganteem ak beneen soxnay kilifa. ndax jàpp nañ dafa am lu mu sekk ak borom këram ba tax coow li également euh, mu ngi mu ngi mi ngi dem voilà mi ngi ba tey ci li nga xamante ne moom moo di site internet yi euh, beneen bi xam nga Ndeye Ndaak ginnaaw biñ ko gëj a gis ci télévision mu xamle woon ni dafa dem toog Europe ngir euh, ngir ngir ngir jàngaat am loo xamante ne da ko bëgg a renforcer waat ci moom ngir mën a ñëwaat en force am na nag ñoo xam ne ci ay jegeñaaleem xam ne nañu loolu amul et moom waa fem ñoo ko écarté ba tax Face Dakar di samp laaj di laaj ndax Ndeye Ndack dañ ko écarté écarté nañ ko écarté wuñu ko yaakaar naa ni moom ci boppam dina ci andi euh, ay leeral euh, dinañ leen euh, dégtal ñaari vidéo benn bi dina concerné ki nga xamante ne moom moo di Maty Trois Pommes beneen bi ndege yaakaar naa ni ak ki nga xamante ne moom moo di Maty Trois Pommes ginnaaw bi mu génnee nag ci euh, kaso bi indi na moom waxtaan sekk na ko ak suñu ay naatango yu leeral point net wax na yenn jafe-jafe yi nga xamante ne moo ko metti ci ni taskatu xibaar yi traité woon euh, li jëm ci mbiram mm-hmm. surtout bi ñu naan dafa muy Cheikh Amar doon na loo xam ni euh, metti na ko ñëw na également ci euh, le fait que mu génn wax ci journaux yi ni que Nabou Ouzé fekk na ko campénal parce que aussi Sénégal pratiquement ñu bëri xamuñu woon ni que Nabou Ouzé am na jafe-jafe ak yoon ba mi ngi kaso donc euh, ñooñu ñu bëri ci également Maty Trois Pommes la ñu déggee information mel noonu indi na ci ay leeral bu baax a baax ak suñu ay naataango yu leeral point net El Hadj Modou ñu élément bi ñu dellu si ci plateau bi journaliste yi tey ñoom Euh, xale bu ma leen demee dama leen doole xalaat su doon maay ñoom bu ñu gisee PV ñu jox leen ko mais nañu woo mbokk Mati Fally euh, Mati Trapo nañu oo avocat ñu am au moins beneen son de cloche fu ma muyee Cheikh Amar au contraire ma di ko gërëm di ko sant ndax moom génne na ci alalam jox ma. Mati Trapo commencé na depuis Dakar FM ak Simon Mellage. Mm-hmm. Mati Trapo en 97 muy man di Jules Junior di Boubacar Diallo déjà on était connu mm-hmm. déjà ay xale lañu woon mm-hmm. ñun célébrité nekk woon lu extraordinaire ci ñun. Euh, ñoom Souleymane ju Diop ñu ngi woon Walf Quotidien ñoom abu Abel Thiam ak ñoom Mbay Madiambal euh, suñu mag yooyu la xam nañ bu baax ne gis nañu ba ñuy commencé. Mm-hmm. ak ñoom Ousseynou Gueye. Euh, ñun dañ ko defoon ak passion. depuis Walfadjri mun naa ne je dérange certaines personnes man jàngewu ma Sorbonne jàngewu ma Sciences Po Sciences Po bu ma nee je dérange mooy si suñu milieu. Sénégalais yi dañu bugg 100 pour cent people mm-hmm. xam nga 100 pour cent people ñan lay déranger du célébrité yëpp de. célébrité yu bëri dañuy encouragé mais minorité yoo xamante ne ni jax defkatu njaaxum lañu ñooñu nag ak seen i nit dañuy def tout pour suul émission pour man nekkul moom genre nit bi nga xam ne dafay nëbatu parce que nëbatu moom mooy euh, wala mu nekk ay leeral yi nga xamante ne Maty Trois Pommes indil nañu ko. Euh, voilà jàpp na ni le fait que mu prononcé tour Nabou Ouzé ce n'est rien parce que jàpp na ni que Nabou nëbbatuwul et que euh, jafe-jafe la rek bu mu boo xamante ne jaar na ci beneen vidéo mu di mbiru Ndeye Gueye moodu Modou bu fekkee ni yemb na également moom aussi waxtaan dox na ci digganteem ak suñu ay naataango yu leeral point net Ndeye ñëwaat ci seen association boobu nga xamante ni moom la ñu euh, tëraloon ñëwaat itamit ci xam le ni moom référence la Ndeye Gueye am na yenn leeral yu mu indi également ñu euh, seetaan élément bi dellu siwaat ci plateau bi waaw dëgg yàlla man gëj naa ci dégg dara parce que man nekkuma fi woon gëj naa ci dégg dara gëj dégg dara wax dëgg yàlla xëy na dinaa ko laajte dinaa ko laajte mais gëj naa cee dégg dara parce que xam nga rek man moom kiiwu ma woon bu baax quoi parce que man xam nga rek mais gis nga gis nga ay xol ay xol sunu borom xam nga ñan la mën a dimbali ay borom xol yu di ànd ñëpp yéenante jàmm bëgg ma woon wax sax mais yaa ngi may wax lool. ay borom xol yu rafet ñëpp yéenante jàmm dëgg la sax peut-être association bi kenn amu ci xolu ki ñaan ci li kenn amu ci xolu soxor ci li ma yaakaar mais xëy na suñu borom moo tuddoon ni yaakaar naa da association baa ngi dem man dinaa ko laajte. ñu ngi fecc kat yi man euh, man royukaay laa man dama part personnel man royukaay laa. ndax tey fecckat yu bari xale fecckat yu bari buñ demee ba xamal defal yaay buñ demee ba xamal defal baay buñ demee ba xam joxe dépense man mii maa tax man royukaay raa référence laay doon te moom laay ñaan yàlla. mu nekk yeneen leeral yi nga xamante ne Ndeye Gueye moo ko indiwaat. voilà Ndeye Gueye euh, toujours égale à elle-même ñëwaat ak ak ak ak i bagaasam bref euh, ñu jeexalee comme temps bi xoj nañu ak mbiru Justin Bieber mi nga xamante ne jamono ji dañ ko dañ ko inculpé ndax dafa sànni ay nen yaakaar naa ni ñooñu moom bu ñu gisoon unaar mi toj na chaque jour <laughs> dina doy waar euh, également Khloé Kardashian mi nga xamante ni moom tamit indi na ay leeral ci grossesse am bi mhm. ndax euh, nee na dafa dem ba rumeur yi da ko doon gaañ nee na ndax moom dafa pataa wala moom dafa am biiru ku nekk ku toll ci weeram wala dara mm. Chloé nee na ñaan na yàlla nag am doom mm. mais pour le moment daal euh, mi ngi sant dara dalu ko moom ak monsieur Lamar voilà Kim Kardashian moom euh, ba tey ñëw ci ay robam décolleté yu baax ak yu ki ne dañu foogoon ni bu marié woo ak jay yi sexy bi nekk ci moom dina wàññeeku mais dafa mel ni dafay gën di bari ba pare Kim Kardashian yow Beyoncé da lay xoj de nga jël jëkkëram dafa nànk Beyoncé ngi ci coow ba pare mu jël ah, jabar kenn damaa juum parce ah, que man bi ngeen di jéesi sax damaa juum dama tikke dama ne ah waaw man ma ak BMC ñoo. xam nga nag man pour dire vrai. États-Unis ñaari couple yi ma fa gën a neex ci star yi. Mhm. Jay-Z la ak euh, ak Beyoncé. Mhm. moo tax su may wax rek sama xel ci ñoom lay nekk. ndeysaan Jay-Z Beyoncé baal ma kenn kii laa wax. kenn euh, Kim jëkkëram moo bëgg pour te dire que. lépp lu muy def jëkkëram ba benn na ko daf ko wutal benn euh, créatrice koo xamante ni kooku lépp lu Kim di sol pièce unique lay nekk. moo tax mm. kim daal. moom rek moom rek la koy su ko defee nag après affaire bi kii. duy ji mais ci kim la koy créer. Euh, voilà gis ngeen Unaar moom kuy wax ci Kim mook Abi Ndour ñu koy nuyuwaale. ak Fatou la Malienne ak faatu la Malienne ñoom jaak yaakaar naa ni kuy bëgg Kim ak di wax ci Kim euh, ñoom ngay jàppale euh, lii la fi woon nag tey ci seen rubrique people di jaajëfal tout le monde.